asalaamaaleykum suñu mbokki internautes yi di leen nuyu bu baax di leen ziar di leen bëggee yi ñuy siiw si Wassare Lamb Wassare TV ah di leen bëggee nag ah, wax dëgg yàlla tey kii ñu toogal moom boo gisee sax jotaay bi mu nekk suñu papa la suñu soppe la suñu xarit la suñu conseiller la ndax naam jot amul mais wax dëgg yàlla lépp lu ñu soxla ci moom rek day yomb papa maa ngi lay nuyu Père Max. maa fii maa ngi lay fay eh, di kontaan ci yow di la ñaanal mbir mi métti nag ci jigéen.

moo dee xalaat ay 5000 lutteurs ñiy bëri du mat 500 problème am na euh, rawatina nag ren ñu ubbi saison bi mu commencé neex ko Nicolas am tolof tolof ci Ama Baldé bi ak euh, Modou Lo Papa ak Siteu ñuy xaar ba dernière euh, mu war a des ay 3 semaines wala 2 semaines Covid bi dugg ndar képp réew mi waaw dafa corona bi dafa kar réew mi kor ko bu ko kawate waaye ñun ñaan rek yàlla bu ko yàlla antul waaw euh, xëy na yéeme na mais ñaan mën na ci dara nan ñaan rek te nag dellu ci gëm yàlla bu baax a baax ku ci ne na nga xalaat ne yow yaa tax suñu borom indi ko bu ko defee dinañ baalonte ak te it nag dellu ci yàlla loolu daal mooy li nga xamante ni mooy problème bi gën a yokk mais nag li tax nga naan du problème nañ ñaan mu jóge fi rek lu gàllankoor daaka ji gàllankoor kasu rajab gàllankoor ziar général loolu làmb du ma tabax nag làmb duma ma tabax moom kay nan yàlla rek mu jóge ci réew mi waxi làmb waxuñu ko waaw waaw loolooy dëgg waaw. ñu hmm. gis làmb moom ku ne xam ne am na différence ndax du benn ndax bu njëkk ba juróomi écurie wala juróom benn écurie ngay xayma. léegi bu ne cent soixante école de lutte ak écurie noo mënta doon benn écurie bu cent mbër ne ña ciy bëri matuñu quinze mais foog mu am différence wax junjal naa la ko mbër yee ëpp journée yi tax année blanche mënul ñàkk problème bi loolu mooy différence bi. Mhm. doon gis ni làmb ay comme bu ñu janvier dañuy gis ay combats yu mag daan décembre ñu gis ni combat yooyu amatul mbëru VIP yi. benn combat dañuy bëri boo gisee benn ñaar mooy bëri wala ñett loolu moom day defar làmb wala day yàq. noo xa yoo xam nga ne day yàq làmb problème mooy sponsor yu mag yi ñoo retiré wu. takase yi dem na ma yegg ni benn niveau boo xamante ne nii suñ ne nañu wàññi soo ne wàññi leen mbëri ne non business la promoteur dañuy wit kuñ nax promoteur yi tëgguñu rek pour di perte ku ci ne li ngay bëgg a tëgg da nga cee bëgg a gis sa bopp kon problème am na. waaw problème am na problème bi fi mu nekk mooy euh, sponsor yi retiré wu la ku ci mel ni Orange Tigo Expresso Orange daan na joxe ay 650 millions cinq cent millions Tigo noonu moo waroon kalaafu Gaston ba amoon réussite mais amul benn làmb lu mu rëy rëy booy jaay 60 million ci guichet wala cinquante million nga fay benn mbër 100 million amoo sponsor nooy def amul benn làmb nag mbëri koo ci noonu ma fay la ci gise nga woo say mbokk ma fay la ci gise du nangu yenn sponsor yi daw kon problème am na làmb dafa laajaat ñun dëppal ko toog waxtaane ko waaw état bi dugal ci loxoom pour sponsor yi ñëw waxuñ mu yëkkati jox leen mais pour sponsor yi ñëw waaw. noo gisee ñi ñoom nekk ci kaw. Mhm. parce que euh, ah, ñoom ñu bari ne làmb yi ci kaw la nekk non problème bi mooy euh, suñu waxee li fi ne mbëri dinañ leen comprendre ndax dimanche boo toog bëree ko yaa ngi perte at yi du la fi xaar doole ji du la fi xaar problème bu temps la kon di laaj 100 millions toog 2 ans wala trois ans bëree ko nga laaj 60 millions tegale ñaari at bëree ko moo gën a doon avantage yu mbër mi ndax at yi du la fi xaar doole ji du la fi xaar temps la bu temps bi jotee rek soo ko mënatul ndax li ñaawaay moo gore mais doole ak taar day dem moo tax ma ne at yi du la fi xaar doole ji du la fi xaar kon dimanche boo toog bëri woo ko tax nag say rakkang ci ginnaaw te dañuy ñëw kon defal li ngay war a def dem sa yoon bala ñoo bala balaa ñoo ñëw ñoom. ñi ñooy adversaire potentiel euh, ñi mën a bëreeg bëri na revanche am ak la de sax ci laay njëkkee combat bu neex la diggam ak Gris Bordeaux combat la. Euh, revanche am ak bombardier combat la euh, bu dul loolu it mu may xale yi chance. waaw xale yi bëri na xale yi bëri na ndax euh, xam nga combat am ak Ama Baldé doon nañ ko wax ba dernière minute. la mujj yàqu moo tax Siteu beeg Papa Sow promoteur bi tourné ci digganteem ak booy Niang combat la tey ji nga rëg-rëg it mi ngi koy tàllal ko bëgg mu may ko chance. combat xam nga dama la njëkkal ñi mu war a waxal. jaadu bee jaadu nag ñoom la engagé ñoom ñooy seet leen arrangé dama la njëkkal tuddal ci kaw dama dal ci ñoom la daguerre dal ci ñoom Gris Bordeaux dal ci Bombardier donc ne la wala mu may xale yi chance waaw kon nag mais waxuma ne boo yooyu war a taxaw mhm. voilà kii ma kii maye chance nag mooy seet li mu bëgg mu jël ko Mm-hmm. mais est-ce que tey position kii na foofu ñëw na foofu comme ci camp bi nga xamante ni moom lañ tudd ay Tapha Tine ay Balla Gaye ay Modou waxuma sax ay Gris waxuma champion d'Afrique waxuma leen def ci tournoi mais Elton naatangoo ñooñu la ku ko daan war ngaa mën a bëree ñëpp. Euh, benn bi tamit gis nañ ni yow yor ki nga xam te ne moom mooy Bombardier. Ah. Ah, yaa nekk manager am. Mm-hmm. ñu gis ni 45 euh, ans presque. mat na. Mhm. déwén uh-huh. uh-huh. uh-huh. moom la war xam nga Bombardier moom ah, dañ koy ñaanal rek mu yëgale carrière am en beauté mais même bu bërewaatul sax Bombardier amatul lu muy prouver ci làmb day yëgale carrière rek ndax li mu def ci làmb ñaar yoon nga doon ko roi des ren kenn mësu ko doon ci làmb ji mu jóge mbuur ñu ne ku jugul ci écurie yi doo doon champion mu ber écurie ci mbuur rayante ba doon roi des arènes ñaari yoon créé écurie ba mbuur làmb dekkiwaat fa dekkiwaat ci petite côte bi ay campement yi làmb dekki fa kon kooku li mu waroon def def na ko ci làmb ba pare nag demaat ci benn discipline di ca wane boppam kon kooku bu amee combat baax na ndax nee na woon bu sañoon buy bàyyi du bàyyi ak defet mais même bu fi yemee it Bombardier amatulu lu pour prouvé ci làmb mais nag suñ ko bàyyoon mu continuer day gën a neexal làmb ci waaw. ndax mu waaw waaw que nee na bu sañoon du bàyyi ak defet mais même bu bëree waatul Bombardier amatul lu muy prouver li mu waroon def yëpp def na ko. Père Max moom euh, ba léegi ndax yow yaay manager am mais tey ku la tegaloon euh, tey su ma tegal la Eumeu Sène tegal la Modou tegal la Balla Gaye ban combat nga siy jël. non xam nga moom Bombardier du dëkk Balla Gaye du dëkk Modou ndax moo leen daan mais bu sañoon dina fayu ci Eumeu Sène fayu ci Gris waaw ñooñu moom da leen dëkk ñee nag dañ koy dox ndax moo leen daan. waaw. waaw déggoo ma de waaw. ñee da leen dëkk ndax moo leen daan. dama ne dëkk Balla gay du dëkk Modou ndax moo leen daan. mais bu sañoon tey fayu ci Gris Bordeaux wala Eumeu Sène ndax ñoo ñoo ko daan. kon dégg nga ma léegi leer na dégg naa la waaw xam <laughs> am na solo. <laughs> beneen mooy ñu gis ni tamit euh, la doon kiim uh-huh. mooy suñu papa Gaston. mais mm. au passage suñu papa suñu xarit. Uh-huh. ñu gis ne dafa yëngal instant bi àdduna. Uh-huh. ndax père Gaston jékki-jékki woon na bàyyi. mu ñëwaat. am benn classe bu muy murmuré. gaa yëpp. ñëwaat ñu gis ni Gaston dafa commencé am benn pas bu mu teg. loolu nan nga ko gisee te gis nañ yow sa copain non ñëwam demande sociale la dafa ñëw ci moment bu métti naa ko 92 wala 94 bi ngay ñëw nga xam da ngay toog 3 mois benn combat léegi lañ ko gën a soxla ndax li ëpp ci mbër yi bëreewuñ sponsors yi daw nañ événement yu mag yi daan xaar amatul mais décembre 25 décembre événement la daan doon mais léegi dañuy dem Iba Mar loolu kenn xalaatul kenn mësul xalaat tëgg ko Iba Mar 25 décembre 1er janvier non la daan doon wallaay ak 4 avril événement la daan doon boo génnee ci mbedd yi doo gis picc kon làmb am na problème léegi nag ñu soxlawaat ñu mel ni moom ku ci mel ni Gaston Petit mbay Aziz nee na bàyyi na mais Baye Ndiaye nga fa di tëgg mais ñi mel noonu la làmb soxlawaat ak ay lig ne ko laay au moins làmb ji melaat na mu meloon wax naa la ko léegi 4000 licenciés wala de plus ñiy bëri matuñu 500 ñëpp di entraîner suba ak ngoon di yaakaar làmb buñ ci réussirul ëllëg ñooñu lu ñuy doon am na ci loo xam ne duma ko tudd nag man ndax am na ñoo xam ne ba buñ dee lekk suuf sax duñ def lu ñaaw. moo tax ñi naan suñ bëréwul agressé dañuy wax rek da sama sama sëriñ bi ne diw jaay na ngoroom dana amu ko woon ngor comme doo ko jaay am na ñoo xam ne doon lekk suuf it def lu ñaaw waaw. kon na dëkk baa ngi riir promoteur yaa ngi dox ci suuf de duma la wax lépp nag ndax du ma ko yëfi jaamu mais waxaale wi commencé na de. Ah. waaw waxaale wi. mais day baax xam nga mu ngi dox booy ñaa Sa Thiès Eumeu Sène Bombardier bi jiboo woon nañ ah nee na rëg-rëg tafaatin suñ bañee danaa indi leen même bu dul loolu ñu ngi doon xalaat garga saa Thiès Moussa Ndoye Yékini Siñoor su mënta ne nga roof Moodu Anta xale yi lukkeeku nga ne naa jël euh, Mama Lamine euh, kii euh, doomu dàngu jël garga 2 soo ci ñaambaasee wuli 2 baax na su baaxul it nga jël beneen xale boo ci toftal rek jël xale yu mel noonu boole leen nga xam ne au moins da am da nga am assurance bu bëree ñetti yoon ci saison bi mais loolu day dekkalaat làmb te bu ci dee day ànd ak tête mag boo seetloo même ñuy dund làmb au moins waat nañ xalaat ne làmb xëy na mi ngi delluwaat fa mu nekkoon te du moom rek am na yeneen promoteur yoo xam ne ñi ngi yëngu. làmb daal soxla na dimbal na ci ñëpp dugal seen loxo. Gris Bordeaux Sa Thiès jaadu dégg nga li Khalifa xëy wax tey ndax nee na duñu ko jël ci sunu làmb ndax euh, suñ digg ak Balla Gaye doon da moo amoon victoire ci ñun mais par point la te dañu bëgg nañu revanche boobu ñu leeral ko. su ma jumloo Fass dafa mel ni loolu lañu wax tey mm-hmm. waaw. waaw mais kon tey booy yi nga xam mm-hmm. bëgg beneen mm-hmm. day baax xam nga làmb moom da ngay bëreeg say mag bëreeg say morom bëreeg say rakk loolu moom a sàmm ci làmb nag noonu lay demee da ngay bëreeg say mag bëreeg say morom xaar say rakk bëreeg ñoom waaw li ngay wax ni ci lu foofu rek la bëreeg say rak parce que say mag dañ la amoon chance mayoon chance ba nga dégg daal yi waaw léegi mais nag yow yaay yor choix bi yaay bëgg wala nga ne bëgguma na prouver ba ci kanam lu it ak làmb ñoo ànd waaw. Père Max. Mhm. nga amoon mhm. mhm. ndax mbër léeg-léeg cas force majeure am. nga ne nañ ma dolli mais bii kenn ñemewu la wax loolu ñu ngi tàllal loxo nag état bi jàppale ñëpp xam ne mbër yi sonn nañ promoteur bi sonn na mais dama la junjal ne la lu gàllankoor événement religieux yi tëj jàkka yeeg jumaa yi làmb du ma ta wax ñooñ ma la doon wax muy ay sitake Papa Sow jël nañ ay max ay masque ak yi doo sax dimbale jaami yàlla yi ak di leen ñaanal feebar bañ leen a dab mais loolu moo ëpp doole làmb lu yàlla dogal la ñi ngi ñaan nag euh, état bi mu mënee soutenir promoteur bi soutenir mbër yi. feebar bi jóge fi ñu continuer activité yi mais loolu loolu la yàlla dogal mais Siteu day continuer entraînement am rek ndax foo muñu ko combat bu officiel la ba ñu régulariser ko. kon bu seen bu CNG ubbee ak yeneen combat yi ñu renvoyé woon yi ñu reporté te te mu officiel xalaat naa CNG ñoom lay njëkk a jox date keneen kuy am date dogal ndax yee officiel la. na waaw dañuy ñaan rek ñaan yàlla feebar bi jóge fi bu ko defee ñu continuer activité yi. Mhm. école bi Lansar dañu daan gis day mhm. Mhm. daan donte am na ay boy yu nekk. yoo ñu ngi dugg. mais tey école am. li ko waral mooy làmb day évoluer génération de génération en génération am na écrit yoo xam ne bu lit bu mbër yu mag ya nekkee bees rek écrit ba fay ñun daluñu. ñan ñoo xew jamono yi fu xew fu ne am nañ xale yu bëri ak ñooñu bi ñoom Siteu di bi bi bi ñoom Tidiane di ay lekki fëgalaaki super étoile nees non dañuy bëri ci stade bi mag defar daf lu ne mais booba ñan doon bëri am na ci ñoo ne bàyyi nañ mais teewul ba ñoom ñi ngi continuer di maintenir di bëri ci làmb ñu nanguñu loolu au moins liggéey nañ ba au moins ba fi may waxee yow am nañ loo rama yoo xam ne mën nañoo bëri bëre grand combat loolu liggéey na bu am solo boo xam ne gars yi bàyyi wuñ ko xel ndax yaa ngi naan sit boo ne Siteu ne Coens ne Boulal Mama Lamine Tanor Ngel Kokki étoile 2 tant d'autres xale yooyu ñu ngi fa fees dell di ay xale yoo xam dañ leen defaraat parce que li bonoon mooy nga liggéey ci mag ñi rek mag ñi nekk bees écrit bi fay déedéet ñu loolu daluñu ndax toujours dañuy liggéey ci xale yi teew nag mag ñi ñu ngi leen di accompagner di entraîner di am ay combat di bëre waaw. Tanor moom ko ragal. mbër yee ko ragal bugguma wax loolu mais Tanor moom bugguma sax wax mbër daa ragal bi mais Tanor moom. mënul am ay treize combats lépp di ay ndam mbëri nanguwu ñoo bëre ak moom. waaw waaw waaw nekkoréel di ndaanaan tegale ay victoire mais koo ko jox mu bañ. waaw. tegale ay ndaanaan non loolu moom tollagun ca. waaw dañu ñaan yàlla rek euh, affaire bi amaat. ndax nag boo séddalee di ci boole sa waa kër. man ne man ñëpp laa yemale nag mais boo séddalee boole ci sa waa kër. waaw. Père Max. Mhm. beneen léegi dañuy gis mbëri léegi. Mhm. dañuy xaw a dal manager yi ne yéen léegi seen kii mhm. seen kii rek ngeen soxla léegi. mbëri léegi topp manager yi toppatoo tuñu mbëri. ndax seen kii rek ngeen soxla seen 10 pour cent rek. non loolu wax bu yàqu la yan yan ménager. ah parce que mbëri nee léegi pour nga am combat. non yan mbër. Ah. père Maxime ah, noo man xeer woowu du ma dal ku jiitu ñu la sàngal ku jiitu noo ki jiitu rek lañuy sànni xeer loolu maa ko mag du ma moromam man promoteur yi soxla sama mbër ñëpp man la ñuy waxal te samay mbër samay xarit lañu lu ñu yor maa ko moom lu ma yor ñoo ko moom seq weesu dañ sax affaire làmb mais mais bool bu bu généraliser. mais man ba léegi cër ba mu amoon samay um, uh, mbër maa ngi koy am ci ñoom. di leen doxali komba mais jafe-jafe wax nga ko léegi promoteur yoonam daawul ne ci combat bu ndaw. mais léegi même promoteur day wit xale yi am coow dem di wax ak mbër ma directement teggi ménager ba kon lu ménager def bu njëkk ba daawoo gis ko am 80 kilos bëree. Euh, wala ñu jël ko am 80 kilo mu sës ca grand combat ñu jël ñoom ay 100 et ñu njëkk a bëree ndax naan amuñu mbooloo loolu daawul am ci làmb làmb da nga dara ci suuf jëm ci ngay gis da ngay tuuti sax même boo amee mbooloo ñu ne noonu na mujj bëre dem loolu bokk na ci li yàq làmb ndaanaan yaa ngi ci écrit bi kenn bëreewul toujours am na ñuy bëre ñi leen di encadré leen yóbbu ñoo leen dàq bëre mënuñu leen a daan mais ñoom mënuñoo am combat soo waxee ñu ne amul mbooloo moo tax ñuy ñaan promoteur yi dellu siwaat am ay sponsor bu ko defee ñu mën a génne ndaanaan yi ci écrit yi ñu bëri mais ndaanaan yaa ngi ci tuus bi bëri wuñ soo waxee ñu ne amuñu mbooloo loolu bokk na ci li yàq lamb waaw ah. non amul benn problème euh, di di leen ñaanal rek ca kaw ca kanam lu ci rafet borom bi la lu ci ñaaw jaam bu xeebu moo juum rek di jégalu ñëpp. waaw Bassa di ko bëggee waat bu baax a baax mooy suñu papa père Max Badiane ah, mu nekk koo xam te ni ma ko waxee rek ku ñu bëgg ku safoo ndax wax dëgg yàlla sama relation ak moom ñëpp ko xam ne sama xarit la di ko ñaanal jaamu yàlla aar ko yàlla ndax sax lu bëgg ci moom rek day yomb te bu ko nekkoon mën naa demee wu moom wax dëgg yàlla papa kontaan naa ci yow bu baax. jërëjëf jërëjëf maa fi jërëjëf jërëjëf. kon ni ma la koy waxee rek ñeel na la yow suma xarit sama doomu ndey soo ne la acca rek nga ne acca ngeen bëggee wala yéen ñuy suivi si Wassare Lamb Wassare TV per max la ngeen ci doom di nag wax ji xaw naa jaxasoo mais li ma leen wax nee naa leen ñii ñooy làmb su ngeen gisee rek dañuy profité suñu micro parce que ñii ay ay la te gàttal moom suñ ko amee rek dañ ciy profité waale. leen bëggee waat bu baax a baax comme ni a ko waxee rek. Karafi Cheikh moom sama mag sama xarit borom Dakar borom ensemble yi si kontaan ci yow bu baax a baax daal si jàmm yàlla Basiru Kese Fatima Kese jaajëf